nekkal Macky Sall ñooñee dinañu leen fësal ci ab liste rouge maanaam média yi nga xam ne dañu leen di guerre Ousmane Sonko nee na ci Sénégal yàggatul dara ñoom ñëpp dinañu leen bind ab liste rouge Ousmane Sonko moo ko wax nee na nag ñi nga xam ne ñuy waa RTS maanaam ab chaîne la boo xam ne or la loi la Ousmane Sonko nee na waxuma nag ak ñi nga xam ne ñooy agent yi liggéeyee RTS maanaam ñi nga xam ne ñooy njiitul RTS njiit yi dirigeant yi ñooñee laay wax la man Ousmane Sonko niki démb la ko xamle ci diiwaanu Kaolack ndax nee na ci Sénégal bëri na ay journalistes organe de presse yoo xam ne la ñu fi nekk xel dañu leen di ger dañu leen di corrompre yéen a kaay gii de la nee na nag RTS moom est ce que waruñu taal est ce que taal RTS yéen a kaay gii de la témoin moo xëy di ndax nee na RTS nag maanaam Macky Sall la fi nekkal RTS Macky Sall la fi nekkal ak ñi nga xam ne ñooy waa APR ak ñi nga xam ne ñooy li nga xam ne moo gën a garaaw ci mbir mi xaalis ba nga xam ne moom la waa RTS di jëfandikoo loolee suñuy impôt la te nag ki nga xam ne mooy directeur général bu dem na retraite bu yàgg a yàgg nekk fi di propagandal Macky Mamadou Omar Ndiaye na ndax nag jotul ñu daal di taal RTS gi di réew mi ko di jey na ko ma yeggale Ousmane Sonko ki nga xam ne mooy Macky Sall na askanu Sénégal na leen na sunu pétrole bi ak sunu jii di Aliou Sall daan koy jaay daan nay wax ne Benno Bokk Yaakaar voté nañ fi ay loi yoo xam ne ngir góor jigéen ñi ñoo tax te nag jamono ji bëri na ñoo xam ne amuñu liggéey ci réew mi Ousmane Sonko démb ca Kaolack mbooloo mu bare bare bare ñoo daal di fàq ñoo ko daal di gàttandu ca diwaanu Kaolack yéen kaay gii de la sa Aminata Touré moom nag daat nay wax ne jamono ji amuñu benn xel ñaar na dañuy gagné élection législative yi Aminata Touré nee na benn bokk yaakaar day gagné élection législative yi yéen kaay gii di Vox Populi Bougane Gueye Dany nee na nag Macky Sall ak benn bokk yaakaar kenn waru leen a voté la ndax nag képp koo xam ne voté nga Macky Sall yow leer na la ne kon ànd nga ci ñetteelu mandat Macky Sall bi Bougane Gueye Dany nee na képp koo xam ne voté nga Macky Sall yow ànd nga ci njëg yi nga xam ne jamono ji yokku nañ ko ba maara day Italie Bougane Gueye Dany ne képp koo xam ne votel nga Macky Sall yow nangu nga bilan bu bon bi nga xam ne Macky def na ko ci réewum Sénégal yéen kaay gi du l'Observateur ñu xëy fekk fa Pape Djibril Fall moom ma nga woon ca diwaanu Touba doon njaay cekkee ñi nga xam ne ñooy commerçant yi nee na leen marché Ocass bi nga xam ne moom ngeen nekk dañu koo war a yeesalaat assainissement bi nga xam ne moo am Touba dara baaxu ci yéen kaay di réew mi ko di jee na violence yi jàppante yi affrontement amoon na ni ki démb ca diwaanu Kaolack diggante Wi ak waa Bokk Yaakaar moo tax nag ñoo woo état bu Sénégal ngir nag mu daal di assurer sécurité ñi nga xam ne ñooy candidat yi kaay a kaay gi di Sud Quotidien nee ne jàppante bi nga xam ne moo am ni ki démb ca diwaanu Kaolack dox diggante waa Benno ak waa Yewwi bëri na ñoo xam ne am nañu si ay gaañu-gaañoo yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien Aminata Touré mi nga xam ne mooy tàddali si benn Bokk Yaakaar nee na politique warul leen a xaajale yéen kaay gi de la sa xëy dañu xibaar naa ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk hôpital principal mer nañu ba maara détaillé tey jii danañu amal nag ab toogaanu ñaxtu ndax ñoom ñoom nee nañu li nga xam ne mooy protocole d'accord bi ñu signé woon ak Macky Sall juróom-ñaari fan ci weeru septembre 2021 la ñu bëgg ñu daal di koy respecté yéen kaay gi di Sud Quotidien ak Le Quotidien nee na étudiants yi nga xam ne ñu nekk université Gaston Berger jamono ci mer nañ ba maara di taale ndax nag université bi nga xam ne tëj nañu ko ñoom nag nee nañu du duñu deltu ginnaaw benn yoona ci taxawaay bi nga xam ne amee nañu ko yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naa ñu Sénégal li ñu fi tëj ci entreprise bëri na lool lool loola ndax lu toll si ñaari téeméer ak fukk ko ak juróom benn ci entreprise yoo xam ne tëj nañ leen ci Sénégal waaye tamit ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen xëy seen liggéey ci Sénégal bëri na ba maara de tale bëri na ba jéggi dayoo ndax lu toll si junni ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ñoo xam ne ñàkk nañ seen xëy 1146 yéen i kayi gii di libération xëy duñu xibaar naan ñu détournement am na ci poste finance ca diwaanu Thiès am na ku fa détourné lu toll ci cent millions jamono ji moo tax teg nañu ko loxo yéen i kayi gii di source a xëy duñu xibaar naan ñu François Mancabou mi nga xam ne moo faatu fan yi ñu génn ñi nga xam na ñooy waa dikk ñoom nag dañoo woo woon jabaru François boo ngir nag convoqué ko ngir nag daal di koy déglu par téléphone waaye nag soxna si lànk ba tëdd sa naaj wa waa dikk dem yóbbul ko convocation waaye ba ñu demee fekkuñu ko fa yéene kaay gi de Les Échos nee na François Mankubo autopsie nañ ko waaye nag ñi nga xam ne ñooy ak njabootam ak fammeem ñoom yëguñu si woon dara fekki wuñu ko seenub médecin nii seenub avocat yéene kaay gi nee na résultat yi nag ñoo ngi koy xaarandi waaye nag njabootuk François Mankubo ñoom nag